أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom na ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci sunu dars allamani habibi mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey ñuy jël sang bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal bim ñu jàngal du'a u zihab ilal masjid ñaan booy dem jàkka xam ngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundam yëpp yàlla la ko jox sallallahu alayhi wa sallam salaatuhu lillah nusukuhu lillah xayaatuhu lillah mamaatuhu lillah moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam julleem yëpp yàlla la ko jagleel jaamu yàllaam yëpp yàlla la ko jagleel dundam gi yàlla la génn àdduna gi yàlla la moo tax alquraan ne qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin fa kaana fi kulli waqtihi zakkaaran lillah moom yonente alayhi salaatu wassalaam ci dundam gi yëpp 24 heures sur 24 lépp daf ko tudd yàlla tabaraka wa taala yazkurullah fi qiyaamihi bu daan jóg day tudd yàlla wa qu'uudihi bu daan toog day tudd yàlla demam day tudd yàlla dikkam day tudd yàlla lu tax ndax alquran moo ko waxoon ne wazkur isma rabbika bukratan wa asila del tudd sa tudd sa turu boroom suba ak ngoon moo taxit dundam yëpp mu def ko tudd yàlla tëdd bu daan tëdd day tudd yàlla bu yeewoo day tudd yàlla bu dugg ci toilette day tudd yàlla bu génnee day tudd yàlla buy génn kër gi day tudd yàlla buy duggaat ci kër gi day tudd yàlla buy dem jàkka day tudd yàlla bu génnee ci jàkka ji day tudd yàlla moom 24 heures sur 24 lépp dafa am azkar lépp amul lu amul azkar lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewul looloo tax ab jullit am roykaay bu rafet ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla di ko orienté naan ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana dëgg-dëgg bu fekkee da ngeen a bëgg toppandoo da ngeen a bëgg royukaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam a ngoog ñu war koo roy ci loolu moom yonente alayhi salaatu wasalaam mu jàngal ñu suñuy dem jàkka lan la ñuy wax nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu daan dem jàkka bu génnee këram ba jàng ñaanu génn kër li muy wax mooy allahumma ij'al fi qalbi nuuran wa fi lisaani nuuran wa fi sam'i nuuran wa fi basari nuuran wa min fawqi nuuran wa min tahti nuuran wa an yamini nuuran وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا وعزم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا ñaan bu gudd la tey mën nañu mën nañ cee yem fii bu ñu amaatee dar suñu eggaliko allahumma ij'al fi qalbi nuuran yow yàlla yàlla na nga def ci sama xol leer allahumma ij'al fi qalbi nuuran yàlla maa ngi sàkku ci yow sama xol bi nga def ci leer wa fi lisaani nuuran nga def ci sama làmmiñ leer wa fi sam'i nuuran nga def ci sama nopp samay dégg leer wa fi basari nuuran nga def ci samay gis samay bët leer wa min fawqi nuuran sama kaw nga sotti ma leer wa min taxti nuuran sama suuf nga defal ma ci leer wa an yamini nuuran sama ndeyjoor nga leeral ko wa an simaali nuuran sama càmmoñ nga leeral ko wa an amaami nuuran sama kanam nga leeral ko wa min xalfi nuuran sama ginnaaw nga leeral ko wa jaal fi nafsi nuuran man ci sama jëmm ji nga defal ma ci leer wa azim lii nuuran nga muur ma ak leer wa azim lii nuuran nga màggal ma ak leer wa jaal lii nuuran yow yàlla nga defal ma leer wa jaal nii nuuran man ci sama bopp nga def ma leer mbokk jullit yi ñaan gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal jullit bi te moom mu ko daan def xoolal li yàlla tabaraka wa taala wax ci alquran ne moom yàlla mooy allahu nuuru samawati wal ard moom yàlla mooy leeral asamaan ak suuf mooy leeraay bi leer ndeke kon kenn mënu ko am lu dul mu bàyyi ko fa yàlla léeg-léeg nga gis doomu aadama rek ci jullit yi nga xool ko rek xam ne kii dëgg-dëgg dafa am leer allahu akbar ci léppam nag bu xoolee kanam gi rek ak yaram bi rek ak jëmm ji nga sentir ci moom leer googu yàlla di wax moo tax jullit yi aljanna dañuy ñaan yàlla yàlla defal leen leer yàlla mottali seen leer googu rabbana atmim lana nuuran ay yow yàlla leer ga ñu mayoon ci àdduna mottalil ñu ko fii allahu akbar wala même waa safara bu ñu demee safara dañuy ñaan yàlla leer waa safara bu ñu duggee safara dañuy ñaan yàlla leer ci nafsu aaya aaya boobu lan la ah voilà waa safara dañuy wax waa aljanna xool leen nu ndax ñu am ci seen leeraay gi ngeen leer seen kanami leer ndax yowmal qiyaam ñi daan jàpp daan dem ci jàkka yi yàlla day def seen jëy projecteur day leer nañ wara waa safara di leen xool naan leen unzuruna naqtabis min nuurikum waay waay waay waay xool leen ñu waay ndax ñu mën a am ci seen leeraayi kanam yi ndax ñu mën cee gis mën a jàll ixwatal iman ma ajmala min xayaatin min xayaati zikrin wa du'ain dara gën ta rafet dund goo xam ne jullit bi su koy dund dafay dund ci tudd yàlla tabaraka wa taala dafay dund ci ñaan sa lépp ñaan la sa lépp tudd yàlla la booy lekk da ngay tudd yàlla booy tëdd booy naan da ngay tudd yàlla booy tëdd boo yeewoo lépp looy def rek foog nga jiital ci yàlla dund googu dara gënu koo neex xawfun wa rajaa tudd yàlla ak ñaan yàlla ragal yàlla ak yaakaar ko dara gënu koo neex ci dund jullit foo nekk say rongoñ di tuuru ngir yàlla mu nekk jàngale boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ko jàngale na ko jëmbat ko ci toolam boobu di toolu sunna la'allana naqtif lu tax ndax bis bu nekk nuy witt ay fleur ci tool boobu di ko xeeñtu ngir ñu xam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo doon jëmmam lan moo doon sunnaam loolu tax saa yu génnoon jëm jàkka ñaanu jëm jàkka lay ñaan te mooy allahumma ij'al fi qalbi nuuran wa fi lisaani nuuran wa fi basari nuuran wa min fawqi nuuran wa min tahti nuuran wa an yamini nuuran wa an shimali nuuran wa min amami nuuran wa min khalfi nuuran waj'al fi nafsi nuuran wa a'zim li nuuran wa 'azzim li nuuran waj'al li nuuran waj'alni nuuran ñaan yi gudd la waaye mën nga cee tànn benn yow jullit bi ngir nga boole ko ci sa dund soo mën a yëpp baax na soo mënul nga góorgóorlu nga mën ci benn sikk nekk ci ne jaam bi su jegee sunu borom subhaanahu wa taala yàlla may ko leer yaj'al li abdihi min an nuur bi qadri ma yataqarrabu ilayhi kem loo gën a jege yàlla rek yàlla branché la lumière bi nga leer foo toll kem loo gën a jege yàlla kem loo ko gën a sori ngay gën a lëndëm loolu ci dund gi ñuy dund te da ngeen koy seet da ngay xool nit nga xam ne kii dafa am leer nga xool nit dafa lëndëm ñuul ko kenn xam lu muy nuru nga dégg ñu ne oh waaw yii amul benn leer loolu da ngeen koy gis ni jaharan yaqazatan nga koy nga koy nga koy gis mën ngaa gis nit rek nga xam ne kii amul benn cër ci yàlla mën ngaa gis nit nga mën a seede ne kii ah am na lu ma àndal de te loolu yàlla moo koy def loo gën a jege yàlla ci jaamu yàlla ci ay nawaafil ci ay azkar sunu borom subhaanahu wa taala branché la leeram ngi ndax moom moo ko yore jàng ngeen allahu nuuru samawati wal ard mu ne kem loo gën a jege yàlla rek sunu borom subhaanahu wa taala di la branché loolu xam ngeen ne ëllëg doomu aadama mënta mucc lu mu am ngërëmal yàlla ak kontaanteem mu def santaane yàlla yi moytu tereem ci def santaane yàlla ci la ko leer di dikkale ataahu nuuran ci la leer di la dikkalee ci la la njub di dikkalee jàngeen sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne assalaatu nuur julli leer la gis nga julli rek ci boppam leer la leer la goo xam ne daf lay leeral nga xam li ngay def ci lu baax nga sori lu bon inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar looloo tax mu ne معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضيء به moom julli googu daf lay tere def ay bakkaar ak yu ñaaw daf lay jubal ci lu jub comme ni ngeen xamee ne ni mu nekkee leer boo xam ne doomu aadama dana ci leerlu innaka tara an nuur fii man qaama yusalli lillahi azza wa jal allahu akbar saa yu nekk nga gis kuy jullil ngir yàlla kooku ñaar ñii sax buñ taxawee nga mën a seede ne kii jullikat la kii du jullikat jullikat bi da ngay gis ci moom ay asaaru leer ci kaw ba ci suuf ay ki sori yàlla bokkaalekat bi da ngay gis mu lëndëm kenn du xam lu mu nuru du am benn sifaat ci melokaan yu rafet yi ci melokaan yu baax yi loolu yàlla moo ko def même ci ñiy jullit ak ñi dul jullit da ngay gis bu ñuy màgget sax du ñu nuroo bi jaawu kuy julli ak bi jaawu ku dul julli sax du nekk benn day leen ko seetlu jullit yi seeni bi jaaw ak ñi nga xam ne ñeneen du sax nekk benn seen lépp du nekk benn ndax yàlla tabaraka wa taala moo koy ràññee moo koy séparé moo tax mu ne da ngay gis sax ci jullikat leer waxoon nañ ci njël xasanul basri rahimahullah ñu ne ko lan moo tax ñiy jóg njël di julli ñiy naafila guddi lan moo tax seen kanam yi leer fa qaala li annahum xaluu birrahmaani fa albasahum nuuran min nuurihi waaw xasan lu tax ñuy julli guddi ñoom dañoo leer mu ne ndax ñoom dañoo wéet ak yàlla ba ñu wéet ak yàlla yàlla solal leen ci lumière am yi allahu akbar allahumma ij'alna minhum an nuuru najidhu tatajalla fi xayaati da ngay gis leer gi di jolli moo tax sunu borom subhaanahu wa taala wax ci alquran qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin ca dëgg dëgg dëgg leer gu wér bàyyeekoo na ci yàlla ñëw ci ñëw ci yéen ñetti mbir war nañ koo bàyyi xel yàlla leer la yonent bi leer la alquran leer la moo tax Cheikh Abdul Hamid Kiski mu ne yàlla leer la allahu nuuru samawati wal ard alquran leer la laqad jaa qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin alquran leer la lislaam leer la léegi nee na ku am ñetti leer yi kay fa yaisu fi zalaam jullit bu am ñetti leer yi ba pare nekk ci lëndëm ndax loolu xel nangu na ko yow ñetti projecteur tiim la fooy dox ñu ànd ak yow ba pare nga nga lëndëm ah allahu akbar ku am ñetti leer nooy nekk ci lëndëm loolu la seex bi laaj question bu am solo bu am importance yàlla leer la alquran leer la mu ne kayfa yaisu fi zalaam naka la jullit bi di dunde ci lëndëm allahu akbar ixwatal iman looloo tax sunu borom subhaanahu wa taala ba muy tagg demkati jàkka yi ñi nga xam ne dañoo leer mu ne fii buyutin adina allahu an turfa wa yuzkar fi xasmuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi walasal rijalun la tulxihim tijaratun wala bayun an zikrillah wa iqaami salaati wa itaai zaka yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulub wal absar borom bi nee na ci néeg yi néegi yàlla yi laa joxe ndigal nañu yëkkati sama kàddu sama tur dañ may sàbbaal suba ngoon mu ne am na fa góor ñoo xam ne njënd ak njaay soxlalu leen maanaam alalu àdduna intéressé wu leen njënd ak njaay ñoom tudd yàlla ñoom bàkk yàlla julli joxe azaka ndax ragal bis bi nga xam ne xol yëpp danañ tourner jëm ci yàlla mbokk yi yeneen góorgóorlu ci ñaan yi ñuy jàng temps bi ñu am doy na sëkk temps bi ñu am di taxawaalu di wër di lambar-lambari te dafa ñu tus ngalawaay nañ def occasion di jàng sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ñu mokkal azkaar yi waxtu wi doy na de bis a ngi ñëw dana ñàkk waxtu am nañ ay waxtu yu doy pour dund sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour jàng ko pour xeeñc ko pour mokkal ko ndax jamono ngi ñëw kenn dootul am waxtu góorgóorlu leen ngeen profité ci temps bi ngeen am waxtu wi nu nekk xam ngeen ko xam ngeen ne waxtu wi doy na pour dund sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour jàng ko xeeñc ko lépp lu mu doon def nga ciy góorgóorlu sa kemtalaayil kàttan incha allah comme ñaan bi dafa gudd ñu dagg ko fii ba ëllëg ak jàmm ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu barkeel ñu liñ ci jota mokkal jot ko cee jàng asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.